waaw ñun la convergence des jeunes républicains de euh ñun ñep ñogi ni and ko merci ndjay sas la bo xamne d'abord sas bu 10 la mais nak sas bu and ak mbégte la and ak fierté euh, bu fekkee ne ni mu toll ñuy wax ne 15.000 am ñu jël la jeunesse ne ñom ño wara porter projet bo xamante ne seeni wayjur seeni papa seeni nijaay ño ci doon jangé pour ñu war ko réhabiliter loolu euh, nekkul lu dul mbégte dañ koy jëlee nag ak euh, hauteur jëlee ko aussi ak esprit boo xamante ne nii bu positif la xam ne dañu war a liggéeyal suñu dëkk dañu war a def li nga xam ne moom lañu suñu waajur yi defaloon ñu defal ko suñu ay doom loolu dañ ciy sant yàlla njaay bu baax bon euh, incha allahu rabbi yow yaa ko gis yaa ngi woon ñox ñun léegi ci salle bi fi mu nekk nii dama yaakaar ne est-ce que pareeguñu parce que ci salle bi yaa ngi dégg mine de rien ñoo ngi demagum ci ay 26 tonnes de ciment ñoo ngi demagum ci ay euh, plus de 4 millions lo xamantene ni ci xaalis bo recouvrer Té gogoguñ pour dem ci les autorités pour def ay levée de fonds ak yoy li nak di initiative bu majeure bo xamantene ni dans l'histoire de Thiadiaye damay wax né dañ naan goulette am initiative ñun ñëpp Thiadiaye ñu bokk ndey bokk bay se tourner autour de l'essentiel jël li nga xam ne moom la ñu caajaay defaloon li nga xam ne moom la ñu école defaloon ñu ñëw tey ñun war koo defal école war ko defal caajaay réabilité lu day ni école El Hadj Mamadou Diène def ko ci ay conditions yu acceptable loolu njaay euh, lu foor la. di woo bépp jeune. di ci woo OPI di ci woo aussi képp koo xamante ne ni da ngaa dëkk caajaay wala caajaay ñor la mbaa nga am fa mbokk euh, ci initiative bi nga xam ne moom la ministre maître El Hadj Oumar am. Euh, ñu war a école El Mamadou Diène mais kenn ku nek def ci sa doole ñu ci wo les ASC de football les associations culturelles yépp ñu ngi leen ci wo à ce que kenn ku ci nek ñëw duggal mais à la pâte pour que ñu mën réaliser boobu projet te incha allahu rabbi aussi dañ ko compter di pérenniser ren mooy suñu première édition déwén dinañ def une deuxième édition Non lañ ko fas continuer di ko def